sant yàlla ci tey jii biñ fi dajee ngir waajal euh, màggal gi di ñaanal sëñ Mountakha Bachir euh, mu yàgg fi lool te gën a wér donc doon daje tey pour waxtaan ci wàllu préparation màggal gi ànd ka ak euh, tout le district sanitaire ak tamit la commission santé du comité d'organisation ak le comité technique de surveillance épidémio bi bokk ren ci organisation màggal bi. ci wàllu campagne bi chimio prévention euh, wax fa dëgg yàlla amaat nañ si yeneen jéego donc ndax bu njëkk 58 pour cent la woon. bi yoon am nañ 62 pour cent donc muy wane nekkoon kon euh, euh, am na ay jéego yoo xam ne dox nañ ko. te loolu muy wane rek engagement wu personnel bi yëpp biñ ko àndal te tamit nit ñi di gën a yeewu ci xam njëriñu CPS globalement satisfaisant wax dëgg yàlla globalement satisfaisant am na ay quelques refus yu des rek te loolu moom moo tax ñu xam ne dañuy yokk euh, sensibilisation bi yée ñi nga xam ne xamaguñu ak ñi nga xam ne peut-être dañoo am ay information yu wóorul yu yu demeewul noonu ba ñëpp ànd xam ne njariñ kese la euh, organisation màggal du lu bees sur le plan sanitaire euh, communauté mouride avec le comité d'organisation am nañ seen commission santé waaye l'État aussi avec tous ces démembrements dafa ànd ak ñoom ba ci euh, en passant par le ministère de la santé la région médicale ba district Touba dispositif bi yëpp dañ ko organiser ba ñu war a mën a xam nu ñuy organiser euh, màggal léegi nag ren li ci bees mooy Covid muy lu bees waaye tamit ñuy sant yàlla ndax it Touba bi ñu commencé jàmmaarloo Covid ak léegi def na juróom benn weer mu mel ni kon xam nañ ci lu bari bien que nag Covid mooy ma feebar boo xam ne kenn mi kenn mënu wax ne xam na ci lépp waaye au moins euh, xaw nañ ko miin donc ñu am ci lu bari luñ si jàng ba tey jii ñu war a mën avec l'appui de l'État donc du ministère de la santé ak euh, région médical ñu ànd lëkkaloo teg benn dispositif boo xam ne lépp li ñuy yaakaar ak lépp lu ñu xam ne buñ ko defee dina tax nit ñi mën a ñëw màggal si duñ fi indi feebar ñiñ fi fekkee it fagaru ba duñ leen wàll te it kenn du ñibbi yóbbaale feebar du lu yomb nag waaye ñu ngi taxaw ci organisation ba nga xam ne dinañ def suñu lay kattan avec l'appui de du comi de la commission santé et du comité euh, de surveillance ba li ci war lépp ñu def ko ñu ngi ci waxtaan ñu ngi ci euh, gëstu te rafet nañ njort ne Euh, liñ si bëgg yëpp dinañ ko. Euh, chaque poste de santé wala chaque centre de santé dafa doon am ay points médicaux avancé mooy ay yoo xam ne dañ fay yóbbu ay docteurs ay infirmier ñuy faj léegi ren nag ak Covid bi il faut ñu soppi doxalin. soit dañuy xool ndax poste yooyu dañ koy yokkaat ak euh, renforcer leen si wàllu jumtukaay ba nga xam ne tey jii benn cas suspect bu fa demee ñu mën ko saytu jël ko ni ñu ko war a jëlee te du yàq dara ci keneen ki nga xam ne dafa feebar ndax tension wala dafa feebar ndax jabet te bu demee ñu jël ko donc vraiment euh, di dalal seen xel ne euh, sur instruction euh, du président du gouvernement la région le ministère de la santé avec la région médicale et le district de Touba sont en train de s'organiser avec l'appui de la communauté pour vraiment créer toutes les conditions pour éviter la propagation de la pandémie